ñu ne dañoo ñëwoon tey ngir ah. siyaar si la. waaw waaw waaye tamit nag fas yéene waxtaan ak yow. ci li nga xam ne jàpp nañ ne. ci waaw ci maam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne nag moom ñëpp ah. moom lañu bëgg. mooy ñëpp waaw. Ah. <laughs> xam naa ne leen li ci ci loñ ci mën a nettali ci li li li nga fekke ak ñi man nañ ko. ak lañ ca xam ak lañ ca xam waaw. tey loolu daal tey moo ñu fi taxat taxateew tey waaw. <laughs> lu mu wax rek na la. Mhm. lu mu wax rek na la lu mu mos a wax rek de gis ko. Mhm. lu mu mos a wax ko lu ma leen yéene. Mhm. nañ ko gis. man mii nag. cheikh bi la jëkka génte ci géb bi ci laa ma ah, sama maam moo mooy mooy seexu Mbawar. Mm-hmm. booba ñun ñu ngi Mbawar Mbaayu. waaw sëñ ma mooy seex booba njëriñ la féete. Mm-hmm. ndax kanam ni njaboot gi ne gébb. Mm-hmm. tool ngi falli ñoom di ko béy. ak foofu it ja si wane ko wane ko Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye si jëm yooyu. ko moom. waaw waaw day sant waaw. ba ñaan yàlla rek suñu borom gën a guddal fan yi. amiin amiin amiin loole ndax fi mu ne adduna dafa amul solo li fi mu ne tey jii daanaka ko ci demee dama rek saay morom la jafe ndax man mii kat ñoo bokkaloon kenn nekkatu fi ñoo bokkaale mm-hmm. kenn kuy dangay bu nekkatu fii man mii la fi yàlla baal yi mm-hmm. waaw ndax fii de mm-hmm. maa ngi ci téeméer ak ñett ci itam de ci leen ñi tamxarit gii mooy sama téeméer ak ñett mbarke roxay may de bañ ko fanaan bañ booba ba bàll la bañ ko ngéntee ci guddi bukki ñëw na ci ëtt boobu la xam ba booba noonu fa di mm-hmm. ah, waaw waaw waaw waaw mm-hmm. xam fi am na nag gébb googee na tey mm-hmm. mot soola mae fale ab dubee ko mag gébb tey waaw mooy boo ne ab dubee ko mag ab daaw xari fa gébb gébb googee tey mot soola may de la gàtt gàtt gi ab doo koy ab doo ko ab doo ko mag sax. waaw ab doo ko mag de. ab mm-hmm. mm-hmm. doo ko mag de. ma dégg maam Cheikh li ma laaj may wax. waaw moom de. suñu jaay benn ci géej. waaw moom daal dañoo dañoo bëgg nga dund cent trente sept ans. dund yi. waaw dëgg yàlla naa ngi sant bu baax. nag <laughs> yàlla yàlla mi xam ne. Mm-hmm. nga sëñ ma Rémi Diop moom yi. moo nu indiw géej ba. sëñ ma Rémi. moo jëkk a jëmbulu ci ci mbawar mbawar ci ñun. sëñ Mor Ami Diop sëñ Mor Ami Diop. Mm-hmm. moo jëkk a jébul Cheikh Ibrahima Thioune Bamba. Mm-hmm. sëñ Mor Ami Diop ba mu jébuloo. Mm-hmm. mboolem ñi di magam. dañ koo dogal wàcc. dañ koo dogal wàcc nangu nangu nangu nangu nangu nanguñu jébal ga. Hmm? ku la fekk doomi ko ko demee ne yow di borom yax bu le war a falu. ngay takki der di di yelwaani. Hmm? waaye moom moomee mujj na ñoo ñëpp ñëw ci Cheikh fekk si ko Cheikh Rafaal hmm? fekk si ko Cheikh Rafaal moom moo leen am ko defee uh-huh. ba mu jekkee ba kii nag uh-huh. mu mu ñëw gébb gi mu ñëw gébb gi uh-huh. sama baay ñoom sama baay Cheikh Penda sama baay Cheikh Maysa magi magi mbaaw mbaaw yëpp daal ñoo ñoo àndoon ñëw fii di di gor ay tool. Mhm. di go di di gor mhm. di moo rëmi di goral seen bopp ndax kenn ku ci ne am nga fa sa suufas bopp. Mhm. ci waa ci waa mbaaru mbaaru yeeg rek. Hmm? yàlla dogal na nag sama maam Aliyanta. moo moo doon jëwriñam Aliyanta mooy sama ni yaay baay. mooy ni yaay Moussa Bey. mu ne Anta Wolof mooy ndeyam. ma sañ cay baayam. Hmm? ma sañ ci moomee. mooy bàyyi mooy bàyyi alliante hmm? Hmm? ma sanc ma hmm. sanc ma ma sanc ak ak ak ak ak alliante mooy mooy moor daaw gi moor daaw gi mooy taaw ma sanc mooy taaw ma sanc kii ca topp ah, ah, ba fu aminata di sama maam góor ami topp ca moor ami topp ca dégg nga ko alliyanta topp ca moomu mm-hmm. senta ngoone topp ca mm-hmm. hmm? mm-hmm. moo remi jóob mii moo moo moo moo jëkk a ci ñoom ci mbawoon mbawoy ci mbawoon hmm? mbawoy waaw bakal ah. dogalee ah, ah moo remi dogal ñu ñëw gébb gii nekk njëriñ bi ñu nekkee njëriñ dañu daa xëyee njëriñ ñëw yendu gébb di gor ba gor bi àggee bañ tolloo ci di bayit dañu daa gébb di ñëw yendu si dañ daa xëy njëriñam ñëw yendu si ñëw yendu si gébb di liggéey ba wàcc jot ñu yoon wi mm-hmm. booba bu ñëwee ba njax mm-hmm. dañuy duy xan ndox lañuy xandi ndox la ñuy duy andaale mm-hmm. andaale andaale njagoo kii ma jeey bu ñu yendoo ba ngoon ñu ñibbi bu ci ëllëg saa ñu def ko bu ci ëllëg saa def ko hmm? ba yàlla dogal sama moorami bi yàlla dogalee mu mu ànd ak sa ci moom la jébbaloon ci moo ci moo reme la jébbaloon mm-hmm. waaye ba mu ñëwee mm-hmm. sa ba mu ñëwee sa yóbbu ko fa Cheikh Ibra Fall mm-hmm. ba ñu àndee dem fa mu nuyale koog moom mu ko mu ne ko kii nu mu kii nu tudd mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko Njaay Mbay mu ne ko deet Aliou Diop da Njaay Mbay la liyente tudd waaye mu ko Aliou <laughs> hmm? indi turu turu Aliou Diop waaye Njaay ku ñu commencé a tuddee ci ba mu nekkee mboor Njaay Mbay lañ koy wax mhm. ah Njaay Mbay lañ koy wax mhm. Mhm. moom mais nag sama baay mii cay jëw ñam la bokkante Moussa bi ci jëw ñal yenta la bokkan jël baax na moo koy indi fii mu nangul ko lépp kantu luñ ko dara hmm? ko nekkan Cheikh nag liñ daan dégg mu di ko wax liñ daan di ko wax dafa wax ni foo ma saa di dëkku jàmbur la bii dëkk mooy sama dëkk daaru muyit xam nga gébbatul daaru muyit daaru muyit mu ne daaru muyit gii foo ma saa yàgg da fii nag mooy sama dëkk mm. foo mm. bii dëkk def naa fi ndox sama si sama yaram mu hmm? def naa fi ndox sama yaram mu sotti ko suuf mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag na ngeen góor góorle toog mm-hmm. te xam ne la fa ndax dana leen fekk fii xam benn bis bàyyi mbàkke moom yi ak sama bàyyi liggéey ñu ànd dem ngay rooti ba ñu demee rooti hmm. yendu fanaan ba ceellëg sa tisbaar hmm. sa borom tombee nag ak sa maam ñëw hmm. toog fi buntu këram boobi booba àll rek ka fa ne ba ñu sawee baamee ndox bàyyi ko yow na ngay aw ci tund wa sa maam neen waaw ñee ñan la ñu ne ka ah, ñee de waa kër sa jellentaa mu ne ah fu ñu deman mhm. ñu ne ko am ah, de Fall dañoo deman ngay rooti di démb lañ deman ngay rooti mu ah démb ba tey mhm. ah loolu doy na waar ak doom bu ñu jekkee ba de ko wañ ma deñ mhm. bu ñu jekkee ba de ko wañ ma deñ wañ ma deñ mooy robinet <laughs> hmm? mu delu ne lafandar <laughs> dañ leen fekk fii ah. kere ba jekk baak ñuy jën yi ñëw na maa ngi ne leen Cheikh Fall waxam dikk leen jël leen ci jën yi booba am nañu daa xamuñu nu ñuy foofe jën de mm-hmm. jël leen Cheikh Fall waxam dikk leen mm-hmm. sama moo fi mm-hmm. ba mu jekkee ba yàlla dogal li li li li li yóbbu taal bi yóbbu ko mu wàccu ngoonu takkusaan ñu yeggali ko Cheikh Fall Cheikh Fall nag daawul dem ci yarmeel moom daawul dem ci yarmeel armeel ya nag ma nga ci biir dëkk bi foofu si kër Sëñ Ablaye Fall daal mhm. Mhm. foofu la armeel yi njëreem ne mhm. kër Cheikh foofu armeel yi ne ba njëkk ba gi seen ko muy ñëw mag ñi ah waa kii di ñëwul Cheikh Ibra mag ñi am ci ah Cheikh ci armeel da ngeen ko mas a gis sax bañ ñëwee dañ ah xanaa sama dikk gii ma dikk la jaaxal la leen <laughs> ñëw gi ma ñu armeel xanaa jaaxal la leen ah jaaxal na de mu ne ay ne kii tëdd dama ko mënut a ñàkk a more mii mun ma ko ñàkk a tiim hmm. waaye damaa bëgg leetar bii ma yor hmm. leen ma càngam yi hmm. ba jot dani bi ngeen teg ko ci more mi lu yàlla boppam dara fam jëm foo mu jëm dafa laayul boppam dara dafa laayul dara boppam su ci armeel nag day su ma duggee ci armeel yi ruy ñoo wax samay tànk moo tax du ma dem ci armeel ruy ne ruy rax samay tànk moo tax du ma du ma dem ci armeel moo tax ne ruuy ruuy ñooy laxas samay tànk ruuy fii ci denc dañuy laxas samay tànk moo tax du ma dem ci muy armeel waaye foofa la jëkk a demee ci armeel ci la mujjee demee ci armeel nag ci la mujjee demee ci armeel waaw Cheikh Rafal lu mu wax loola loola dara lu mu wax dara. gébb mm-hmm. googee de. Mm-hmm. luy fekk lu luy xew lan sax ndax daa leen fekk. fii de. Mm-hmm. daaru muyit. daaru muyit la ko tudd. tey de lépp tey de lépp ñëw a gëfa lépp a gëfa daaru muyit. ma maam moom moom bi muy dem fan la la bi muy bi liggéey fu mu la fekk. xanaa fii nag. fii gébb la ma fekk waaye nun Cheikh Ibra daa jógee di si nu di ànd moom <laughs> barke Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra uh, dama du doyal ci maam Cheikh Ibra ma laa la ne bu ma saa jógee kër Cheikh di julli si mm. ma nga nuy fekk fa jullikaay bi nu ànd ak sunuy bàyyi ànd dem julli ji korite la korite tabaski korite ak tabaski la ñaari wiir yi kay la ñu am mm. Mm. tabaski korite mooy sunu jël sunu naa mbooloo mi bëri lool te ëpp mënu su ko su ko wax <laughs> ah <laughs> Cheikh Alpha yàlla ca <laughs> kat day dox kat. Ah? day ah. Ah. bu ma saajee kër Cheikh day. Hmm. war du waat war day day dox mbooloo mi topp ci moom rek. waaw waaw. Hmm. Hmm. mbooloo mi topp ci moom. daal daal di saraxul la loolu ñaar daal di saraxul daal di yor raay bi bañ koy gas. raay bi bañ koy jëmee si ko Touba. man mi ak Fall. dan daa dox ba joteetu nu soog a nge booba noo ngi jéeyam dan daa dox ba joteetu mm. nu soog a toog soog a mm. bàyyi dem bi mm-hmm. Mm-hmm. maam Cheikh may sa bàyyi Mbàkke bii ah. chef la woon ci ñu yoroon mbooloom cheikh la ah waaw Baye Mbacke Diop. Ah, cheikh na ah. cheikh la yoroon. chef d'équipe. yor yor ah chef d'équipe ba mm. ah, moom chef. te ñi ko jiite woon ci la bokk. te ñi ko jiite woon. Mm. yi ci yor mbooloon ci la bokk. Mm. ndax xam nga dañ koy def équipe bu ne. ak ña ngay ña ngay àndal di leen wax fii la. équipe bu ne noonu lañ ko defal. waaw noonu la noonu la ko waaw. Eh. dañ doon dox ba jiite suñu soog a bàyyi mm, nag dem nañu ba ba tolloog saabe mm. soog a bàyyi dem bi mm. waaw soog a bàyyi dem bi nag moom moom moom fan nga ko njëkk a gisee maam Cheikh fan nga eh? ko njëkk a gisee Cheikh la damaa judd rek nekk fi ji tànkam <laughs> xam nga maa ngi dégg naa léegi moo la moo moo la tudd ci lu wér <laughs> dégg saa ah. sa maam moorom yi dañu dañ ko tuddee Cheikh Ibra te di ko wooye te di ko wooye Cheikh Penda Cheikh Penda Cheikh Penda mooy bàyyi fàll mais nañ ko tuddee Cheikh ko woowee di ko woowee di ko woowee mm-hmm. mm-hmm. sama baay mm-hmm. sama Baye. dama daa toog ba yàgg. mu ne ma Cheikh. lay penku lay ba nga xam nangam ma ne ma dem wuti nangam yot ma. Ah, waaw. ba nga xam nangam dem si nangam yëpp. waaw mm-hmm. ah, waaw soog la ko wax. Mm-hmm. Ah, maa ngi ne loolu lañ daa def di. Mm-hmm. ba nga xam nangam ne ma dem si nangam yëpp. loolu lañ daa def di. Ah, waaw waaye sama baay nag. sama baay nag sama baay. soo ko mos am na jàmbay bi mu ne njëriñ. di ñaw machine. machine sama baay dañ daa ñaw di. tay tay loolu la sama baay bi mu lañ koy jaawalee. sama baay nee na. nee na nee na Cheikh Ibra Fall. Hmm. dajale nu ba fukki machine ak ñaar. Hmm. Hmm? def ko yu tàgg wax jaww ji. waaw mi ngi ci moom kay mi ngi ci. saa baay nee na Cheikh Ibra Fall dajale nu ba nuy fukki machine ak ñaar. ñu ngi dugg satal teg fi suñu wet. ku dem ca gaan waaye satal la gàgg fa. mu ay wëlis doy ak i piis. ay jëlloo bi rek lan doon ñam. baam fa fukki fan ak ben waaye nee nee nee nee ay wërs lañ ko waaye na nee man Moussa de hmm. yéen yéen doon ñaaw te di ko indi sëñ Touba de hmm. nee musuma dox fenn ba loo xam ne hmm. ma lii li ci doon liggéey la saaba ya ko wax nee musuma dox bu gis fenn ma xam ne lii Cheikh yo doon liggéey loolu fakk moo leen yóbbu fakkar Cheikh googee ñi ku wàcc sa machine ba ñëwee jaas sa kuy ñëw ko ne dangay jàpp waaw waaw waaw waaw kuy la de loolu la de Mm. loolu lañ def ne daal musuma dox ba gis lu bokk ci loolee mm. musuma ko mais mm. sama bët mu ca la yére yéen ñu yutoon Cheikh la Sëñ Touba ne musuma dox ba gis lu ca bokk man man Moussa ci nu ña ko doon ñe waaw waaw <laughs> sa bay ay tajal la xoolal sama sama baay sama baay Cheikh Maysa Cheikh Penda sunu mag yi Mbawar daal ñëpp ay Kajoor lañu woon. Mm-hmm. sunu mag yi Mbawar ñëpp Kajoor mm-hmm. mm-hmm. lañu woon. te ñooñu ñëpp li tax maam Cheikh Fall kii moom Sëñ Tuubaa moo taxoon. waaw nga ah, ñoom nag daaw ñu nekk ak formango ñoom. ñu naafee gerte. duñu nekk ñu ngóobum saa ñettee wala mbéy saa ñoo xew. waaye nag ñay nool si bu ñëwee ñoo leen di yor. Mm-hmm. ñoom ma nga ñoo leen di yor ba ba ñu ñibbi si bi mm-hmm. ñooy joxe dépense de ñoom tajoor yi ñoo koy joxe waaw waaw mm-hmm. ñoo koy joxe waaw ñoo koy joxe waaw ah waaye moom ah waaye sëñ bi nan sant yàlla baax rek ah, sant rek di rek di sant yàlla baax waaye nag yow mi kenn gënu la maam de ndax <laughs> ah, kef gënu la maam <laughs> moom dañoo xamul ci moom dara ndax dañ ko fee fekkul moo tax xamuñ ci moom waaw waaw leen fe yàggu leen feeg moom bu ngeen fekkee fekkuñu ko fekkuñu ko waaw waaye nag mag ñi fi nekkan la ñuy wax rek ngeen di dégg la ñuy wax rek ngeen di dégg waaw waaw moom de maam ma ne maam Cheikh Fall de mag ñi am na loo ñoo xamante ni moom sañ-sañ leen defaloon. Hmm? ma ne maam Cheikh Fall mag ñi dafa mel ne am na ñoo xam ne sañ-sañ la leen defaloon. sañ-sañ sañ-sañ la leen defaloon. waaw ci lu wér mag ñi ah mag ñi li Cheikh Fall defal ndax am na seen liggéey ba gu fa. Mhm. doolee ko def waaye seen liggéey a gu fa. Mhm. waaye doolee ko def doolee ko def. doolee ko def. Mhm. doolee ko def waaw doolee ko def de. mas na maa gis benn bés day. ñu ne sa ñëpp laat dafay ñëw. cere cere sàll waxaan waxaam des ah, ñooy sëñ sëñ ñëpp daal dafay ñëw mm, mm, mm. waaye ba mu tàgg ba yàgg bàyyi cere naa weddiwuma ngeen gis ko ko ko sëñ ñëpp daal yebal ne waaye jëmmi sëñ ñëpp daal ci dëkk bii gisuma ko ci yoon wi de cere sàll laa wax gisuma ko ci yoon wi de bàyyi cere nag mel na ko xoromu la woon ah xoromonte daa ànd nag dara di ma ne ah. Mm. xaw ma duuma ngeen gis ndawal sëñ Abdou mm. waaye sëñ Abdou Lahad suma su ma ko yoon yoon gi yi mm. su ma ko yoon. Hmm? moom itam moo noonu. du ma deeyee Tuuba. deew Tuuba amul xorom. boo dee dañuy jungut jongate daal dem ci xabay damay dem bëgg ma dee fa. Ah. ñu di ma musigal ba ma agsi. tamxaat lay lay dem nag. Ah. te fii laay tamxate mm, mm, mm. noonu la defit de bisu tamxat lañ koy indi fii bisu tamxat lañ koy indi fii ah, te noonu maa ngi dem gébb waaye fii lay tamxate bisu tamxat bi lañ koy bëggoon nañ gébb loolu ah waay gébb gébb kay la gébb gébb borom dëkk ba lam fa di def ba fu mu ko def de ah. man na maa waat yàlla ne gébb yàlla na aji fekke ji rek mais xam naa man moom yàlla noo ngi ñaan bu baax xam naa man bëgg ci gébb hmm. Hmm. foog naa mëntu ma ko fekkee hmm. wax dëgg yàlla waaye nag lii dina tax ñu gën a xamaat gébb ah, waaw waxtaan yu mel nii waaw ah, gébb dina tax ñu gën a ñu ñu a xamaat gébb waat ku na ko foo jógee koo xam ne kii de soo mën a ne fu rek say néeg da ko def billahi maa la ko barke yàlla fa gébbay dëkk ba ndax xam nga man mi di wax ak yow mhm. xala mu woon a dëkk fu dul gébb mhm. waaye sama baay daa wax ne yor doone fii lañ may yore ah sama baay daa wax ne koñ yor doone fii lañ may yore mhm. Ah. kër fi ñëw ngayel laa fi ñëwee ndax dañ koy nangu dégg nga booba barataay ceng nag ci gébb fi barataay ceng ma ñëw fii daa ci daa daa sengu ñaari néeg daa jël ndaam sengu ñaari néeg moo moog daaju bar daas hmm? daaj beneen benn benn seng boobu bar naay seng waaw hmm. ah, waaw nii daal fi dikkee ay bis gaal ba matee hmm. lépp ku ci ne am na foo dugg ku ci ne am na foo dugg ah, waaw lan def de ku ci ne am na foo dugg de noonu lan def ah, moom kay jaay yàlla baax na de yàlla baax na ku ñuy wax Baye Mor Ndiaye tomb del mi de gis naa ko waaye taxul ma gis naa daa naa moon yaay tomb del ca góor ña la de mu ne xanaa kenn ko. suñu Aliou Fall Mbawar suñu Aliou Fall nag jaxal moom daal bari mooy tànk bari mooy tànk moom waaye ku baax la woon. Mm-hmm. ku baax la woon. Mm-hmm. man mii. Mm-hmm. dañoo xëyee gébb. watalante ba fees. di ko siyaas moom suñu Aliou Fall Mbawar di ko ba nu ñëwee. nuy nuyoo ba ba ba ma agsi jox ko loxo sayar baan doo doo doo da nga ko dégg sayar baan. Ah. sayar ne ko kooku cheikh bi mu bàyyi Moussa bi te laa ma ca maam góor bi te laa te laa mu nga cheikh bi mu bàyyi Moussa bi. <laughs> Ah, fii Touba gii da nga da nga waxtaan lan def di ko siyaar si. ah, ah sëñ lii daa yàgg na yàgg na Mbawar de. sëñ lii yàgg na Mbawar de. yàgg na Mbawar de. sëñ yàgg na Mbawar de waaw waaw. sëñ Modou Moustapha Fall miinu nga ko loolu. sëñ Moustapha Fall rek laa miin. Hmm. sëñ Saaba rek laa miin moom laa def moom ba mm-hmm. moom laa def moom ba tey. Mm-hmm. sëñ Saaba fanaan na ci nii bii sëñ Saaba. Mm-hmm. waaw waaw. moom rek laa miin. te Saaba yi naa fa lay Saaba yi saab xarit. loolu daax moo tax keroog Saaba yi wax yëpp ba sëñ moo dem te ñëwee. dane su ngeen gisee ma def lii kat. damaa xam su ma jékkee bi su sarax ba. ngeen bëgg a waxtaan ak yéen du sama ab taalibe sama baay la waaye kii du sama ab taalibe sama baay la loolu wax de loolu sëñ ma dem taal kii du sama ab taalibe sama baay la ah waaw waaye sëñ saafal saafal yawaaf tuwaarkal tuwaarkal la man mii takke naa sa takke naa takke naa fas gébb mhm. ñu yónni ma ci sëñ Moustapha boobu fa ci gaañoo ñu ne nga guy ngeen daal di guy ngeen fii daal xëy ba dem dem guy ngeen guy ngeen laa ko fekk daal di guy ngeen laa fekk sëñ Moustapha waaw waaw waaw la joxe ñaan yàlla moom mooy sos mooy weddi mhm. mbir mhm. mooy sos mooy weddi mhm. waaw waaw waaye lim fi nar a bàyyi dara mënu ko faa teere waaw noonu la ah, noonu la de ah. nag naa lañ ko toppee nii moom mën nañ eh? cee fanaan moom eh, mais du doy du doy ah. man kat <laughs> man kat fekk nga naa sëñ Tuubaa ni Cheikh ne hmm. lu ma doon dox fàtte naa ko moo doon dox ba dem ci pénc mais lu ma doon dox loola fàtte la waaye nag alhamdulilah noonu sant yàlla te seen yoon wii maama naa Cheikh Rafal ne lu ngeen bëgg da ngeen ko ci am barkeb Cheikh Rafal barkeb Cheikh Rafal maa ngi koy ñaan ci doole Cheikh Rafal barkeb Cheikh Rafal barkeb Cheikh Rafal lu ngeen ah sëñ Ablaye Fall ndar kooku rek laa miin di sëñ Ablaye Fall ndar kooku rek laa miin sëñ Ablaye Fall ndar ah kooku rek laa miin sëñ Samba sëñ Samba moo tudd si woon moo Modou moom mm. ba mu ñëwee. Mm. sooda bi mi njëkkee di fab liir bi jox ko sëñ bi toog fii de. Mm. ma taxaw fi bunt mu ne bàyyi Cheikh. man xaaral ma waxoo ma dara de. ah man fàllu ma lay wax liir bi góor la mu ngi say Mm. ne lu mu ca teg mu ne wàcc nga kat mm. <laughs> ah, man Fallou ma la mm. liir bi góor la mu ngi sëy loo mu ne wàcc nga kat ba mu tuddee ba nag mu ne kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh Rafal booba bàyyi na fi ñu kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh booba la ñuy liggéey kër kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh ma ne ko jaajëf Fallou rek lañ bëgg loolu bu noonu waxee noonu wax lu wax siul foofu mu ne ma kon nag tuddee naa ki fi nekkal Cheikh Rafal waaw ah, bu nu dajee bu nu nuyoo moom dax ma naa ana borom turu mag ba <laughs> du ma ne sëñ ma day ana borom turu mag ba rek la mu wax Ibra Fall nag eh. moom ndax mm, dëgg yàlla mm-hmm. alhamdulilah noonu sant yàlla moom mi féete ak moom mm-hmm. sant yàlla moom féete ak moom moom noonu féete ak Cheikh Ibra mm-hmm. dan sant sant yàlla baax rek dan sant yàlla dan sant yàlla baax a baax a baax a baax a baax li ma xam daal ci Cheikh Ibra Fall xam naa ne mooy baabul murid ah, yi ne lu mu ne nala nala lu mu ne nala nala hmm? lu mu ne dafa wax ne daa wax ne sëñ ma baabu gi kat ba mu jógee di mm. ne sama dëkk bii ko taxaan a jóg mm. waaye maa fi teg maa teg sama tànk waaye tuuti kon maag si mm-hmm. ma boobu ko dana xor-xoral mm-hmm. <laughs> ne ma boobu gii ba mu jógee di mm. muy sam-sam googee mm-hmm. ne fii ko taxaan a jóg waaye nag maa teg sama tànk waaye ma boobu ko dana xor-xoral tuuti kon maag <laughs> tuuti kon maag si ah tuuti kon maag si waaye sëñ bi man delloo sant yàlla nun mii nga xam ne danoo laxasu ànd ak Cheikh Rafal te te bu ñu nee sëñ Tuubaa ne Cheikh Rafaal dafa mhm. hmm? mhm. waxa ne mhm. sëñ Bamba sama sang bi bala maa yaatu ci moom damay ne ca penku doon doon yilimaanam mu doon sama maamoon Cheikh Rafaal noonu la bala maa sëñ Bamba sama sang bii damay ne ca penkoom hmm? doon yilimaanam mu doon sama maamoon boobee laa yaatu sëñ Bamba sama sang bi suñu ma dee denc nag nañu gas bu mu wóor ne maa gën a suufe sëñ maa gën a ma faa def loolu mm-hmm. mm-hmm. loolu joxe woon ndigal de mm-hmm. gis nga ko fa mu nekk tey foofee ñu ko def moo joxe woon ndigal foofee de moo hmm? joxe woon ndigal moo joxe moo joxe loo sant yàlla bu baax man de noo ngi sant yàlla bu baax tey ñaanal sunu mag ña fexe ba nu ñëw fii ñenu indi fii noo ngi leen sant baax ñun de noo sant yàlla sant ndax fi mu nekk wax dëgg yàlla nun ñi nga noo doon taawi gébb de kenn ku ci ne mën na laa wax loo xaye du dañ ci gépp mm-hmm. Mm-hmm. ndax la waral loole noo mm-hmm. di taaw mag ñoo daan wax nooy ci seen biir ñu wax nuy dégg la doon wax nag dong la ñuy nettali la ñu wax képp la lañuy nettali waawoo ndax gépp goo gi de moo ni fii mooy dëkk bi daaru muyit daaru muyit la ko Cheikh Fall tudde daaru muyit waaye ne fii ah moom li ñu xam ci moom lépp mën noo toog fi benn bari wax ko sax ndax sunu xel mayetunu ko sunu xel mayetunu waaye Cheikh Ibra Fall mooy lépp mooy lépp Cheikh Ibra Fall mooy lépp kon moom kon moom bi mu fi nekk boobu dund nga ak moom ay ay bi mu fi nekk mas nga koo gis booba mas nga gis maam Cheikh Ibra nun daay day la nun nun maa falilu yóbbu Cheikh Ibra daa bàyyi ko xamu Cheikh Ibra kër Cheikh la daa jóge fii la jëkk a dëkk mm-hmm. foofu miir na googi la jëkk a dëkk mm-hmm. mais na ba wopp tàngoor yu ñëwee mm-hmm. ba ya dal mu ne si fekk dem ci bopp moom ci boppam dem sañ ci miir kër Cheikh kër Cheikh googe kër Cheikh googe ñaa màkkaloyee dégg nga foofee la sañ foofu la dem sañ ba mu ko defee nag yàlla mi dogal dogal ba saamaam moo re mhm. ni foofu ay cheikh rek mir mir ne ay cheikh rek a fi dëkkandi mhm. cheikh soose fa dëkkan mhm. da leen a woo ne leen def naa moore mi muy seen teg naa ko fi seen kanam muy seen plot moore mi jóg mu seen pilote. Mhm. teg naa ko fi seen kanam. Mhm. mu ne moo mi Diop teg naa ko fi seen kanam muy pilote. pilote xam nga mooy ne ci bopp gaal bi. Ah, mu ne defal naa leen ko mu ne fi seen kanam. <laughs> defal ci mu ne fi seen waaye moo waaye moo mi Diop. Mhm. yàlla tuwaat kan la. ndax euh, palukat la doon. loolee moo ci ko ca gannaaw. jàpp Cheikh Ibra. waaye Cheikh ci bopp it. moo ne. sëñ bi naam Fall ci man la jëkk. waaye palukat la mm-hmm. moo ne sëñ bi naam faal kat doom ci man la jëkkee Cheikh Ibrahima ko wax de. <laughs> <laughs> mooy sëñ bi naam faal ci man la jëkkee moo ko ne ci man la jëkkee de. <laughs> ci man la jëkkee de ah mm-hmm. moo ko wax de uh-huh. waaye nag. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima li na xam ci moom lépp daanaka. Uh-huh. bu nu toogee lépp sunu xel du nu may lépp waaye li na xam ci moom. mënuñu ko wax lépp. parce que Cheikh Ibrahima. moom moom moom nit ñi dañ ko daan misaal di wax naan daan sol yére yu ñuul yooyu noonu. daal. ñun lan ko xamee lan mm-hmm. lii nga gis mu sol ko mm-hmm. lii du mbase ñag la mm-hmm. complet bi ba am ñagg la tubéy ji moo weex ci ak lay waaye ñagg la waaw ñagg xam nga ñag rabal rabal ay ah, rabal la rabal la rabal la rabal la waaye Cheikh ah lépp lépp lépp la jënd ci moom de. lépp la jënd ci moom de. lépp lay ndax lépp lay tax ndax bu ¿eh? ñu sëñ Tuubaa daa wax ne. daa wax ne. Ibra Faal day. def taa ko noo xay ne. musuma koo def nit te dootuma ko def nit. ndax Ibra Fall daa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa eh. loolu loo xam ne dana Ibra Fall def naa koo def si duutu ba ko hmm. ndax Ibra Fall daa xam fa ma yàlla teg mu teg mu teg ma fa hmm. Hmm. waaw waaw loolu la wax keroog loolu loo xam ne loolu loo xam ne léegi ni ngeen xam na ngeen laaj ko ni ngeen xamal seen bopp ngeen laaj ma ko eh. ma si xam baa la ma si dégg baax xanaa kay mag ñi ko mag ñi nga xamante ni ñoom nga nekk ndooroon gébb ku ci nekk daaw dégg muy nettali ci maam Cheikh Ibra loo xam ne ah ñoo ñoo lañ doon wax lépp doy na waax <laughs> ndax kii nga xëy na mooy mooy mooy mooy sëñ Daouda Ngom. Mm-hmm. kooka moom kenn daaw ko laal. sëñ Daouda Ngom. Mm-hmm. am ko Cheikh Rafal tegan lu na mu la def ko de. lu mu la mu def ko de. Mm-hmm. dégg sama baay day. sama baay. moom ci boppam. daa waxan ne. daa waxan baay day baay ko. man de Touba du ma ko du ma ko lëndatu de ak faatoom. ak faato mu ne damay yendu ji keroog mm-hmm. keroog yàlla dogalee sama bàyyi wàccub liggéey mm-hmm. mu yónnee ca bàyyi daya tëral ko ci ruum bi nii mm-hmm. bàyyi daya yo ba mu ña xawul bàyyi daa waxa danaa ji waaye lan waxan defoon na ko eh. ndax Moussa noonu na man Touba du ma ko daay yendu ji waaye man di guddi lay dox <laughs> daya mu ne mu ne guddi lay dox la Mm-hmm. suuf tam xarit. Mm-hmm. takku saa tam xarit la faatu. Mm-hmm. ñu indi ko guddi. mu daal man di guddi lay wax dana loolu lay dox. de. waaye dama ne géeb maa mu fa nekk faaris nga. daa wax ne. daa wax ne uh, mat jëng fari. sa moom mat jëng fari sa moom. na si naa ji li ba ca na ma Cheikh Ibrahima ko de. Oh. dane ma jéng fay sa moom dàq na si naa jili ba ca mbaxana ma cheikh laa koy wax moo ko waxal bopp mm-hmm. dàq na ko ba ca mbaxana ma moo ko wax de mm-hmm. ah xam nga nit boo ko dàqee ba ca mbaxana ma di seet too ko dara de <laughs> ah. ne ma jéng fay sa moom dàq na si naa jili ba ca mbaxana ma ba ca mbaxana ma waaye ma ngóor gi ndax ma faal kumba ñoom re mm-hmm. ni jaay ni jaay di yaay Abdou Xolle mii ca ca ca ca ca takk yu jëkk yi la ca mm-hmm. kaamal yàlla de mm-hmm. mooy nijaay Abdou Khoule moom la Abdou Khoule dekkal foofu ñu naan ko faal kumba ñoom rek mm-hmm. lépp a ngi ci moom lépp a ngi ci moom am na doom yi daax Cheikh Fall te mu nekkan fii di jàngal xuraan ba mu ñibbisee gébb ba yàlla dogalee bis bi nga xamante ni bii gaañu na bisu kere yëngu na yëngu koo xay ne ngi tuwaarkal la Cheikh xaasi la moom mm-hmm. moo doon taaw moo doon taaw moo doon taaw mm, ma faal kumba ñu rek mm-hmm. moo doon taawam mm-hmm. waaye suñ dëkk boobee lu baax rek ku koy wut maa mën a waat ci yàlla gébb si dafa Cheikh Rafaal waxal maa mën a waat ne xam naa ma ne du ko fekk waaye maa mën a waat ne gébb da da dana weesu yaat na <laughs> mel dana foo ko Cheikh waxal fa nag ndax lii de bokkul la mu jëm de Cheikh Ibrahima fu mu ne fala ba gébb na la wóor ne dana dana doxaat ba ba jàll ba ba nan ko baan nun mii nun mii jëkk a dem de ah. te man ñi a dem aa ñoo ca bokk waaw mm-hmm. ah, nun mii nag mm-hmm. nooy nooy nooy ña fa jëkk judd mm-hmm. man falilu yabal xali njaay ci ma sunu bawar ga Fall moomee mage naa koy juróom benn weer yabal moomee mooy sunum tofo yabal xali njaay mooy sunum tofo Fall mage naa koy juróom benn weer mhm. man maa ngi juddoo gébb mhm. Fall bàyyi ba ñu nooraani mhm. ca juróom benn weer yi ca nooraani fu ca la Fall juddu fa gébb ca gébb la juddoo at ma kii at moom di nga ko di nga ko jàpp at ma at ma ah. man nag xam nga nun dam daanaka xam yooyu daanaka xamul waaye ah. waaye Cheikh Fall ah, lu mu wax rek na la jàkka joojee uh-huh. gata sakketo gadda haje jaggandi foof ñu yek juma tey fof suñ feñci ma fimirna juma ci sakketo gadda hawa jakkande ñuy dox bañ bañ sakket ko xat ñuy dox bañ sakket ko seng di dox ba miir ko di dox ba muy juma tey ji foof yi loolaa fa jiitoon te sunu kanam nag lépp sunu kanam la lépp sunu kanam la woon waaw lépp sunu kanam la bu ñu masaa Cheikh Rafaal gi ñëw kenn ku ne da ngay jóg taxaw ba ba ba koo yëg dégg nga ah, na ah, maanaam maanaam sëñ Modou Aminta mhm. ah, mhm. nijaayam nijaayam mhm. nijaayam nijaayam maafaam ñang moo yoroon moo yoroon daara xar moo yoroon moom moom moom suñ suñ maanaam suñ ñang suñ ba bi ñang mm-hmm. moo yoroon xal cheikh rafaal xar yi mm-hmm. foofu jumaa ne tey mm-hmm. boo boo kër cheikh yaa ngi jaar ci buntu daaraam ngir lu mag la fa defal làkk làkk làkku daa sol xari cheikh rafaal yi waaw moom ma faal ñang moom mooy mooy mooy bàyyi cheikh ñang mooy seen bàyyi moom ñoo ne taneeful ga ñoo dëkk taneeful ba ñoo dëkk taneeful waaye nag Cheikh Fall mm-hmm. nun day wax dëgg yàlla noo ngi sant yàlla mag ñi kenn ku ci nekk daa am loo ko yoraloon waaw waaw waaw waaw waaw waaw mag ñi day uh-huh. moom rek kooku moom ba moom daara na ci ci daara ji boobu moom mm-hmm. yor ndax xale mm-hmm. moom féetewoo féetewoo gi rek. boo loolu la defat moom. boobu moom daa nekkan fa féetew féetewoo féetewoo jur waaye nag Cheikh Fall. ndey sama morom yi day mhm. lu ne ci moom Cheikh Bara ko ci def de ah, si morom yi jóob yi ma mhm. ci moom Cheikh Bara ko ci def lu ci moom moo koy def waaye nag mhm. ah moo nu ne yi mbaawoon de moo remee moo remee nu yóbbu Cheikh Rafaal moo ne si yóbbu de ñun mii moo si yóbbu <laughs> moo remee moo topp ci baayu sama ndey mm-hmm. góoree mm-hmm. mi ci sama ndey moo demee ci topp moo mm-hmm. demee mii ma moo topp ci góoree mi jur sama ndey ah, waaw waaw waaw topp foofi ma foofi nag foofi foofi lu dëkk nag Cheikh safa nekkan tey ma dugi ñaay sëñ man njaay ñaay sëñ sëñ Ali njaay daabaay booba booba booba booba ñooy ñëpp ay cheikh lañ cheikh ba leen cheikhal mm. ñu dëkk wër ko ñu dëkk fay wër ko nag mm. ñu dëkk fay wër ko <laughs> ba mujj nag bi nga xamee dem ca toole xew na mm-hmm. ñoom moom ñu tuxoo fa boo déggee daabaay gi mm. ñoom sëñ li njaay moo taxoo yéeram ñëw ñëw ñu gor daa bàyyi ko gi mu dëkk moo ko moo moo jarbaatam sëñ Isaa mm-hmm. ñoo toj àll boobu ñoo toj foo daa bàyyi ko gi ñoom ñoo ko ñoo ko sañ ci bay waaye nag siyaara Faal li mu def lépp mu ne su ko wax mm-hmm. ah, fi mu jaar fépp mu ne su nga ca xam mm-hmm. waaye waaye sëñ Tuubaa nag na li mu wax def ko def ni tuutuma ko def ni de sëñ Tuubaa ko wax ah, mu ne Ibra Fall danaa fekk fa dafa xam fa ma yàlla teg mu teg ma fa. mu teg ma fa fa ma yàlla teg na koo xam mu teg ma mu teg ma <laughs> mu teg ma fa. ah waaye sunu magu dëkk ñii. Mm-hmm. lépp luy ne ci góor yàlla mi ngi ci ñoom sunu mag ñii nu jur nu. Mm-hmm. waaw waaw lépp luy ne ci mag mi ngi ci ñoom de. booba mm-hmm. dax dëgg yàlla day looy ne ci mag mi ñoom ñoom it ñoo ñoo ñoo tool yooyu ñoo ko gor am ci ñu sans bàyyi nag njël bi ba mu ñëwee. ni yaayam la àndal di ko goral. aliyanta mu tam kilifa la woon tubaarkalla booba booba ñu ma àndal bari na te ñëpp ay jarbaatam lañu. Mhm. ak i doomam. Mhm. booba doom yi doom yi mel ni yuru kumba gi ci moo ci mag ñi ay gune yu tuuti lañu booba ni yooyu mooy ci mag. Mhm. ma kem mooy ci ma wax ñëpp ay gone la ay gone mm-hmm. la rek mm-hmm. waaye danañ sant yàlla ah. di sant yonente bi ah. Ah. ndax lii kat foogunu ko woon mm-hmm. jekk bay nay toog fii di ma laaj ci Cheikh Ibra Fall <laughs> foogunu ko woon béb goog yi Cheikh Ibra Fall moo ne béb gii yenn ku naa fi ba tay jógee Mbàkke Kajoor mais yenn ku naa fi ba tay di noppalu de béb goog yi béb gi waaye bépp goo ko xam ne euh, ah, làqoo naag baatin hmm? baatin na nga fa <laughs> bépp goog yi ne yenn ko jóge naa Mbàkke Kajoor ba tax yenn ko fi de mm-hmm. boo mi Tuubaa ji la jëm si mm-hmm. hmm? booba mm-hmm. day mm-hmm. ba mu ngi cib liggéey wàccagul mm-hmm. waaye ne bépp gii jóge naa tuba ba tay yenn ko ay nga bépp gën a mel xool gën a mel xaal na ko nañ ko def foofu noonu noonu rek la waaye Cheikh Rafal nag noo ngi sant yàlla tey ñaan yàlla na saa mu yokki leeram fa mu ne yàlla na saa yokki leeram fa mu ne Mm. li li ma xam ne mun maa da ci am la dama ko dama koy fàtte. teen ba de xanaa teen ba teen ba am na taarix teen teen eh? teenu gébb boobu. loo ca wax ma ne am na taarix ci am na yàgg na yàgg na fa. ah teen ba yàgg na. Mm-hmm. teen boobee. Mm-hmm. teen ba yàgg na moom. Mm-hmm. teen ba yàgg na waaye nag bi muy teen bi muy bënd nag booba. ba na ci ñun ñaay mag la ñu. waaye Cheikh daa wax ne. fa ñu fa fa ma rëddal bu ngeen ko moyul woon ba ba tey jot ngeen dox. Mm-hmm. ndax xam nga dafa dañoo dañoo duppi nii. Mm-hmm. yàlla dogal mu taw mu tawte mu taw. Mm-hmm. Hmm? loola loola loola loola moom boobu tax xam nga boo tawtee gerte gu. day ndox ma day dugg ci biir réewañ ci kan. ñu ñëw fa wet ga duppiyaat fa. di ko ñax Saliou Gakou. gat ña gaskat yooyu day Saliou Gakou ca la woon. mujj ci teen boobee ci gas day Saliou Gakou ca la woon. dana toog gébb. dana toog gébb. Mm-hmm. Cheikh Ibra Fall nag mbojjam moomee nag laa lay wax ah. Cheikh Ibra ba ñuy bojj mm-hmm. sax yëpp ñu dagg leen mm-hmm. mbooloo mépp daje mbaaru lañ ko baaral mu dëll Cheikh dugg ci biir mbaar moomee eh, fa daggaje fa daggaje ji xiin ba ñuul kub tisbaar jot yàlla xiin ba ñuul kub ah lii mat naa Cheikh yàlla ji xiin na ba ñuul kub ka de ba ñeex ko ko mu dënniru leen mu dënniru ñu dellu ñu wax ko ba mu génnee la leen ne dugg bi Bamba ji du tawte Oh. Mm. Mikaayla Ndaw te dañ koo yónni <laughs> niwul saa dugg yi te dugg yi suñ Bamba ji tawte at moomee mm. gib mboolem lu aalamin wër sébbul noonu ñu ne cim noor mm-hmm. ba ñu demee mm-hmm. ñu ne ah, lii mat naax Cheikh Rafal kat mm-hmm. ginnaaw ñëpp a ngi bay baxaw nun sébbuluwunu kat mat naax Cheikh Rafal mm. ba ñu demee ah nu de Fall danoo am lu nu jaaxal ndax ñan dendal ñëpp daña ngay bay baxaw ว้นึ่งเดียวลูกวานดูมังเงินเด็กมีใครละมาค็ดักคนเสรักคนมีใครละมาค็ดักคนลอลอเลยมันมีใครละมาค็ดักคนบ้าวมังเงินเด็กยกกัดยดนะกันเอาเงียบไงใบบ่าวเงียบเบื่อบ่าวยกยดนะไปนั่งมีใครละมาค็ดักคนเสรักคนลอ waaw ah, mu ne ah, mii kaay loolu de mu ne mii kaay la maa ko ba mu génne bamba ji tawte <laughs> mhm. niwul saa dugg yii de mhm. dugg suñ bamba ji du tawte mii kaay la ndaw te dañ koo yónni mhm. Mhm. mu ne mii kaay ndaw si dañ ko yónni mhm. ndaw nag bu ñu ka ko ka ko yónni boo ma lay wax ak mu ne ko yowal foofu mhm. <laughs> fa la yem fa la yem de <laughs> mu a mii kaay la ndaw la dañ ko yónni dugub sëñ bamba ju tawte de wax de dugub sëñ bamba doon jaka kay dagg sàq wale ñoo ko baaral mbaawam rat mu dëll mu dugg ci biir mbaar boobee bañ ba gisu leen jaaxal ñu ne ah lii mat naa Cheikh Fall kat mat ko àgg kat bay ah Fall ndeysaan jaaxle na ndax yàlla ji de na ba ñu lu ko ci sax yëpp dagg nañ leen mm-hmm. mu dëñiru leen ñu dellu ñu wax ko ba mu ñu ah wax ngeen dëgg kat mm-hmm. waaye nag mii kaay la ndaw te dañ ko yónni mm-hmm. dugg bi sëñ bamba ji taw saa dugg yii de mais eh, dugg taw te mii kaay la ndaw te dañ koo yónni kon nag nun noo jàpp fu nu mat a jàpp <laughs> noo jàpp fu mat a jàpp noo oh, jàpp fu mat a jàpp aw Cheikh Rafal <laughs> Cheikh Rafal mooy waaja Cheikh Rafal lay waaja xanaa njaarem de njaarem de moom bëriwu fa ay tànk njaareem këru njaareem kër gu kër maam Seydou Fall gi nekk njaareem. ah nun danoo dëkkan. Hmm. nun danoo dëkkan. Hmm. nun danoo dëkkan. <laughs> nun njaareem lu lu daanaka gimmi lu dëkk. Hmm. sa faatu xool nag ñibbi si gébb. so man mii. man mii de keroog ba nga xamee saamam aliyanta. sama baay. man baa fere dañ maa jox saamaam waaye keroog ma sama alien te jëlee. Mm. jéege ngumba ñëw mbawar. Mm. di ma yóbbu damaa daw ba dugg ci ron lal gi sax. Mm. bañ ma indee ba njëriñ ñu naa doom yoon te xëy jàngi damaa damay ñibbi. damaa <laughs> doom yoon daay ñu di ma daal ah waaw la waaye nag sëñ bi nan sant yàlla. an sant yàlla bu baax waaye nag dégg nga. maa ngi gébb ñooñe. sëñ Madou Fall Daya mii. sëñ Mor Ngoone Fall mii. sëñ Moussa Guèye mii. sëñ Moussa Guèye mii. waaw ah, peñen googe peñen googe dara nga fa de mm-hmm. ke sëñ Madu Pen mm-hmm. moo ne mm-hmm. moo ne naa leen jàkk bën na naa leen teen sëñ Madu Pen mii nag laa leen boole bu fi doom ju doona ko tudd ku fi wàññi ko na ko ñaanal sëñ Madu Pen bàyyi maami taw pen muy rëdd naa leen jàkk bën na naa leen teen moom sëñ Madu Pen ku fi judd na na ko tudd ku lool loolu la wax kat Madu Peen mii teg naa ko fi seen kanam. maam Cheikh laa ko wax de. moo ne Madu Peen mii def fu dëkk mu ñaa tawa Njaasaan tawa. ci den den ak eh, kees. Mhm. foofu la ko toxale indi. déggoo ñu sëñ tawa. Mhm. dëkk ba lañ koy dàkkee sëñ tawa Peen déggoo ñu wax. foofee la ko yéen jël ne indi naa leen Madu Peen mii. Mhm. su fi doom ju doon ko tudd. ku fi wàññi ko na ko ñaanal. xam nga léegi la waaye. bu ku fa masaa faatu ak looloo nga woon fa buntu kër sëñ ba ak loola loola googee ku fa masaa wàññi ko fa la ñu lay indi ñaanal la nu yenu nu yenu ko dañu yenu booba de booba booba sar amul dara amul ba nu yen suñu bopp yi dañu yen indi yàlla dogal nag nuy dox ba benn bis na am néew bu nu indi ba nu dëppee ci armée def gis gis nga ci penku kër sëñ nu fekk nu jàdd nuyu ko bon ko nuyoo mooy ana ngeen bàyyi ko ne ko ak jéba leen bàyyi ko mooy ngeen doon dox su ko dafa am ku gaañu woon nu indi ko fi mu ne ku ko doon jullee ñu ah, moom kat dañu ko jullee woon fa dëkk bo mu ne ngeen demee dee leen bu leen fa jullee ci mm. dee leen dee leen fii sange fii Mhm. di leen sange fii di jullee fii mhm. ndax sëñ tubaay wax kat ba xam mhm. laay wax sëñ tubaa wax ne suuf si koo xam ne kii am na loo xam ne war naa ko def yow te te jamayu ma ko suuf see ma ko ci defal bu leen fa jullee si di leen sange ci dëkk bi dëkk bi di jullee ci dëkk bi. sëñ sëñ sëñ Fall loolu ko wax de nuyu naa gi jëmm moo nu ko wax de waaw di leen sange ci dëkk bi di jullee ci dëkk bi ndax borom dëkk wax ne suuf si lay dimbalee mm-hmm. ndox mi lay dimbalee mm-hmm. ne ku lu ma ku lu ma war ci yow te mun te tab jëmay moo def ko mm-hmm. suusee ma koy defal sëñ tu Cheikh laa ko wax de oh. sëñ Tuubaa ko wax de ne ne ne loolu lan sëñ Fall wax <laughs> ne loolu la ko bàyyam wax <laughs> kon nag jërë ngeen jëf rek yàlla sa borom barkeel seen i tànk yàlla seen barke si tàgg ah. man li ma xam lépp mun maa toog ah, yow. waaw moom kay moom macha allah moom moom waxtaan mun maa toog yéen di ko wax am na yàlla dégg nañ ci tamit. lu waaw lu ko kawe waaw dégg ngeen si dégg sax maa mën a waat na li ma te fàtte ko sama kanam. ma mm-hmm. la ndax mm-hmm. bu ñëwee mopp taag saa xelum bopp dong mm-hmm. man naa li ma xam li ma fekkee ci eh, mbirum kër Cheikh Ibra la yow na nga tudd nag dëgg man Ablaye Ndaw Ablaye Ndaw noo ngi ñaan ci doole Cheikh Rafal nga kawe kawe kawe kawe ci ndawen gépp ak Cheikh Rafal ba Ablaye Ndaw bàkk sama seen yoon yi ngeen def sama xol seet ndëgg yi ci biir ndax lii lii wax dëgg yàlla ah jafe na ci taalibe mhm. ab taalibe mhm. ku ñëw naa ko daa bëgg laa xam sa nga wax ma ko mhm. di seetloo ko dara ah, te nun <laughs> nun Cheikh Fall la ñuy nooyee Cheikh Fall la ñuy nooyee nun nag man nag ña doon ña doon samay ci gébb googee wax dëgg yàlla sant naa leen ndax fu yëngu masaa jote mhm. lu sëñ bi yëngal ñanga ñanga mhm. xel koom gi mën ci masaa dem mhm. lu waay baax la defe ne xel koom war a lekke si xel koom gi sëñ Saliou gi sëñ Saliou mu wax dëgg yàlla def def na ci dara de ndax liggéey na ko fi loo xam ne yàggul waaye barkeel sëñ bi waaw maa lox ma man de buñ ma sañoon sëñ liggéey bi ñëw na. Mm. kenn koy dëgg sa kër. ma ngi leen di ñaanal nag ci a Cheikh <laughs> Fall mi nga xam ne jeexlewul dara. Mm. dëkk boobu dëkk gébb Fall day. Mm-hmm. man de maa mën a wax ne fu moo tëddee guddi sañi bi gébb lay gént. gébb lay bu may gént gébb lay gént rek. bu may tëddee guddi di gént mm. mm-hmm. gébb rek lay gént ne fa de. gébb lay gént ne fa waaw waaw gébb rek waaye nun nag nun sant yàlla ndax nun mm-hmm. tund woowee ña mm. fa nekkante sunuy morom mm. benn lanu mm. woon ñi fi mbawar gii di sunuy morom benn lanu woon ku ci mos am soxla de soxla de day mel ne soxla si yow eh, ñëpp a ko bokk loolu lan daa def de mbawar geenu cosaanoo de bun masa dem ne dañ fay jëri soxna déedéet kon yaa ngi defar la nga am lépp da nga ko yor de la nga am da nga koy te mm. boo demee da ngay joxe ba kër nga ba ngay ñëw mm. loolu yàlla defal na ko ci ñun nag mm. waaw yàlla defal na ko ci ñun waaye nag yàlla saxam guddal seeni fan yàlla saxam guddal seeni fan guddi yi ñu am yàlla na ngeen ko am loolu si yàlla baax i nga nii bii nii bii puj bii puj bi ñim tiim bari na puj bii xam nga nii bi puj bi dama ko wàññee wàññi ba mu ba mu yem nii nii bi sama bàyyi jëkk a daaj ñeenti koñ la woon Mm-hmm. koñ mu ne juróomi mètre. Mm-hmm. doo dégg sa maam moor bi ca Baxdaad. moor bi ko daajal moo ko moo ko jaayan sama baay moo ko xar daajal ko ko nii bii. bi mm-hmm. bii puj bii. sëñ Saar fanaan na ci nii bii. Hmm? sëñ Cheikh Fall baay góor fanaan na ci nii bii hmm. Hmm? sëñ Cheikh Fall Baye góor fanaan na ci nii bii puy bi bari nañu baax ñu tiim de baax ñu mu ah, de sëñ Assane Fall eh. bi sëñ Moustapha Fall wàcceeb liggéey dugg na ci nii bii toog fi ne da roy roy laay laaj <laughs> dongay dongay roy laay laaj fii ah, waaw waaw ku baax ku ne dugg ni puj bii ku baax ku ne tiim xam nga nag nii bi moom kàdd la moom maa maa fa saa wa mm-hmm. daaj ko ba dëkk ca ba ñibbisi fii mm-hmm. dajjilu ko nag andi ko daajaati ko fii mm-hmm. par gayet la ba muy ñëw fii de mm-hmm. ñii bi waaw par gayet la mm-hmm. fi mu ne pexe yu ne ñu ngi ma ciy dugal da ba ma fi soog a ñëw da ngay def nii da ngay def tax maye saa nii dini cilaa <laughs> ko yéene jee cilaa ko yéene jee comme tiim nañu nii de ñun ko sa ñëpp lay Fall ndar ah, nii bi tiim na na ko de moom daal santaan nañ bu baax baax ji maa leen gën a kontaan man mi leen gën a mi nga xam ne li ma xam ni wu bari wax naa leen ko. Mm-hmm. loolee rek doy na kent. Mm-hmm. te mën naa ne ma xam romb na lii dama mm-hmm. ah li ma xam romb li fii. li ma fekkee ci gébb gii. ah gébb ko bëgg. ak këf si yàlla maa ko bëgg. Hmm. yàlla yàlla yàlla nan sunu boom dajaleeg mbuutum gébb rek man moo fi jógee yàlla yal dajaleeg mbuutum gébb faal hmm. barke bi yàlla faal hmm. ak gaaña fa gaañu baax ña fa ne gébb ñu baax rek fa ña fa nekk ñu ay kilifa lañu ay kilifa rek fa nekk mag ña fa nekk ñëpp Cheikh la defar na leen ñëpp defar na leen waaw da ngay xool la la la la Cheikh la faal wax lam ne ma jëng fari saa moom dàq na si naa yili wa ca mbaxana ma Cheikh laa ko waxee kenn waxalu a de <laughs> ah seetal loolu ah, ah dàq na si naa sama bàyyi nag bu ku mu saa ñëw këram fekku ko fa mm-hmm. dañu na dem nga kër moor ngoonee mm-hmm. bu néewul kër moor ngoonee ne kër Cheikh Ñang ba kër dayaade mm-hmm. bay dayaade waaw waaw waaw ah. ah, ah. benn lañu woon benn lañu woon benn lañu woon benn lañu de kon nag nan delloo sant yàlla bu baax nañu yàlla yàlla nañu yàlla fayal delloo sant yàlla bu waaw waaw ci hmm? Demba bàyyi Cheikh Ndaw mu baax ma. moo jur bàyyi moom. <laughs> aywa yàlla yàlla fan. yàlla yàlla guddal seen fan. <laughs> sant naa yàlla sant leen na ngeen góorgóorlu nag. Mm-hmm. gis la nga liggéey gimiñ la. Mm-hmm. Mm-hmm. foo fekk toog mel ne ko defee tàmbaleegul dara rek. mais ne ko tàmbaleegul dara rek. ndax li li li li lu lu doy. moo di ngëneel du doy. te ngeen ku koy ku ne da ngay xeex. waaw mel leen ne kuy soog a tàmbali yoon wi rek mm-hmm. ah, te itam kenn ku ci ne mm-hmm. sa kilifa ga nga gis mm-hmm. def ko yow mu dëkk ak sëñ Fallu baa nga def ko ne yow mu dëkk ak sëñ Ablaat fi yow waa juróom de man day sant naa sama baay ba ndax sama nii bi génn ma ko laa ne hmm? te wax dëgg maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah sama ñii bi génn ma ko. sant naa sama baay sant naa sama ndey de. jigéen ñi may waxal fii dama leen ne. sama ndey day. li ma xam ci mu jox ko sama baay ci xale tabaski ku ko yoon sama tii mu fees sama ndey. te yooyu xar boobu bu ko la xale léegi. waaw waaw at mu nekk tabaski nag. sëñ Cheikh Fall mii ma lay wax naa dafaa ñëwoon sëñ Cheikh Baye góor mii. kere mu yónnee si. takkusaan. saa bàyyi doo xam sëñ bi naa ba nga ñëw naa ba ñëw ba genn takkusaan ah ndaw ño ne fii kër Baye Moussa Beye mhm. ñu ne waaw waaw mu ne sëñ bi néegu ah. mu daay yónnee ca rakkam ñoo xam moo yar yibra bi yibra ngumbu moomi mhm. alli biyee ko yar yibra mosunoo bokkub tool yibra mhm. mooy mu yónnee ca mu ne ko ah, sëñ Cheikh daa wax ne bu subaa fii lay yendu si ne ko na mooy def ko sëg yi naa na mooy def ba ñëw <laughs> ma ko ma am naa yeneen xalaat man de mu ne moom lay ma ne ko dama xëy sëñ Cheikh Fall du ganu gàtt de. Mm-hmm. mu ma nga yaakaar lan. Mm-hmm. ma ne ko Saali mi aw nu yëkk gër gànna. Mm-hmm. gànna mooy chéré sos yu jo Baye Badara Diouf. gànna mm, gànna Diouf. boo mooy yoon naa gi sama day ma ne ko Saali mi aw nu yëkk gër gànna teen ko ko raay. saa ne ma loolu kat yaa koy wax. mu ne ma loolu moom yaa koy ma dem fa Saali ne ko ma ne ko saa bay daa ne. sa sëñ Cheikh dafay ñëw suba. Mm-hmm. mu bëggoon sa naw yi ci kër ga nga lebal ko ko. Mm-hmm. mu ne ko doxal mu ne ma demal ma ñëw. waaye mu ne ko borom jàmm. mu ne ko faal mu ne ko yaa yónnee woon mu ne ko mm-hmm. am na loo ko wax. ah Cheikh la ma ne sama baay ne daa bëgg nga lewal ko sa nawe ci kër ga ndax suñ Cheikh dafi ñëw sama ne ka bor la du bor la du ci am ne ko nu muy amee nag mu ne xanaa def te yàlla sax sama baay ne ko jàmm dëpp kat maa ngi koy kenn ñu koy indee Cheikh Tall Gallo mi nga xam moo laa tibbaate njël sëñ Massa woote liggéey Cheikh Tall Gallo mooy tibbaate boobu na xàgg nekk carrière mhm. Cheikh Tall Gallo moo doon tibbaate kooku xaw ma dégg nga turam ah, hmm? nga mhm. ah sa sëñ Basiru Basi sëñ sëñ Basiru sëñ sëñ Basiru Mbay Basiru Mbay hmm. Basiru Mbay boobu sëñ Cheikh Fall hmm. sëñ ne ko kaay seet ndawal gi waaw booba nag rafet na suur na waaw mhm. waaye nag nan góor góor lu baax. <laughs> boobu sa waajur Baye Moussa bi lu mu rayal suñu seex fa. boobu lu mu rayal suñu hmm? seex. na na na damaa damaa wax si ah. ba ma ko nee. Hmm. sëñ Cheikh kat du ganu gàtt de. Hmm. mu ne ma nga yaakaar ran ma ne ko sama ne mi aw na kër gànna teen ko laaj. saabaay ne ma loolu moom yaa koy wax. ma dem fa saani ne ko saani mu ne bii. ma ne ko sëñ Cheikh kat daa wax day ñëw fi suba saa baay bëggan sa naawi ci kër gànna nga lebal ko ko mhm. mu ne ma demal ma ñëw ba mu ñëwee mu ne ko borom jàmm mu ne faal mu yaay wi noon Cheikh mu ne loo ko wax dama koy bi dafa lay ñëw suba bëggan sa naawi ci nga lebal ma ko mhm. saa li la ko borto du ci am mhm. mu ne ko nu muy amee nag mu ne xaar yaxat def te yàlla Mm-hmm. saabay ne ko jàmm dëpp mm-hmm. xanaa def sa yàlla saabay ne ko jàmm dëpp ah. ah, waaw waaye nag nan sant yàlla baax rek mm-hmm. yàlla yàlla barkeel seenu yoon yàlla yàlla barkeel seenu yoon te yoon wii yàlla na ngeen ko fi doxaat si si fekk ma ci doole dina la fi fekkaat alhamdulilah alhamdulilah yow mii nag wax dëgg yow sa maam jalaa baax le sañ Ndaw ah kooku mos a fekkee um, addisam de da ngay ree rek. Mbaye <laughs> ah, waaw waaw <laughs> ah, waaw. Ah. wax dëgg lii. suy uh-huh. waajur wax dëgg ñëpp xam nañ leen wax dëgg yàlla. Uh-huh. ñëpp xam naa leen. Uh-huh. moo tax kay tey ñu ne woon nañ ñëw. waaw charge yi. siyaar si la. Euh, xamante waale tamit. waaw waaw defee beneen yoonee. mën a ñëw waxtaan gën a waxtaan gën a yendu gën a yendu waxtaan. waaye liñ fi jot a am nii moom doy na sëkk ndax nag wax yàlla benn benn maam Cheikh Fall nee na rek. waaw rek doy na waaw Cheikh Fall li lam wax. Mhm. doy naa nettali de. Mhm. Mhm. doy naa nettali de. waaw waa ji bu ñuy wax mbaawal mbaawal mbaawal Cheikh Ibra Fall danaa wax naa daa wax naa mbaawal mbaawal nag taalibe mbaawal mbaawal ñu gétt lay doon kat mm-hmm. <laughs> da lay jege naa danaa gétt la kat ba ba dem gii ñuy dem xewul voilà moo tax ma tey li mbaam mbaam la gétt du gétt ba ah. loolu laax boo ko fekk. loolu ñu gétt waaw waaye man sama maam Moremi. ah, ah Moremi li ko yàlla defal yombul. booba. <laughs> booba ba tubaarkal ah. la booba kër gi bu jant soo fële waaye nga xasa xasaay moo jëkk a takku ci ku sant Diop de. Mm. ku ne ca lëgën mhm. sëñ moo demin taa ko wax de mhm. ku ne ca lëgën déet seen lëgën lëgën ngay dajal mhm. sëñ moo demin taa ko wax de moo ne boo nee ca lëgën déet seen lëgën lëgën ngay dajal lëgën ngay dajal ah? ah nataal bii ci ginnaaw de bëggoon naa xam kan la hmm? ma ne nataal bii ci ginnaaw bii ci den dëkk kooku sama baay ah, ma nekk nii waaw moom laa dendal noonu ah maa dend moom la xanaa xam nga boo ma xoolee xay nit ñi du de <laughs> xool ma ni ma rase fii <laughs> waaw kooku saa baaya. day xaw a nuyoog si ñëpp Sakkoor ci fan. waaw moom lañ koy kuy ñëw moom laa xaar si ñëpp Sakkoor. waaw baaya. waaye nag yal na saa borom barkeel seen tànk yi. yal na barkeel seen tànk yi. te ngeen fekk na fa ay yoon yoon. ci doole seen